jot na ba toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci xibaaru marax yi ak ponk yi ci gën a fës Marcel Petersen soppi na xar kanam cantine ya fa nekkoon dañ leen faa jëlee commerçant ya fa daan xëy di daan seen doole ñu ne nañ jógee ca bërëb ba na mu gën a gaawee bokk na ci la ko waral xam ngeen ko liggéeyu BRT ba fa lay jaar yenn ci ay jaaykat ne fi mu ne nii euh, daal euh, seen àddina tukki na ndaxte euh, foofee lañ doon suturloo ba tax na ñu jaarale ko ci seen kuréel bi leen lëkkale woo nguur ak Sénégal mu yóbbu leen feneen illa mu jox leen ndàmpaay daan ci ñëw euh, ci biir xibaar yi Ousmane Sonko euh, di sàkku rek ci ay ñooñam ñu ànd ak dal xam ngeen ne euh, njiital Pastef dafa war a wuy ji juróom-benn fan ci weeru avril bi ñu dëgmal ci mbir mu ko lëkkale wala boog bu ko jotalee ak soxna suñu naan aji saar forum du justiciable rafetlu doxalinu député maire ab boobu di Ousmane Sonko mu ne nag ñoom nga xam ne ñoo bootu ci Pastef ak itam soppe yi rek nanu des ca kër ga ndax moom Euh, lépp lu mu war a def dina ko def loolu waa forum du justiciable rafetlu nañu ko lu jëm ci wàllum caada les bonnes de la rédaction Ibou juf def taxaw seetlu ci téere bii nu xaatim dippee ko la classe inversée Ibou Dieng moo ko bind joxe na xalaatam ak tegtal lu jëm euh, ci jàng ak jàngale muy doxalin bu bees tëralin itam euh, bu bees lu jëm ci tàggat yaram Sénégal dina teew xam ngeen ne ci coupe du monde ca Qatar atum 2022 bi ñu nekk ambassadeur bu Sénégal foofe ca réew ma ne nag daal Euh, dinañ def seen kéem kattan gannaaw ba mu ndokkalee sunu gaynde yi moom excellence itam neen daal lu jëm ci waajtaay bi daañ ci def lu ñu mën moom coupe du mille vingt 2022 boobu la ñu des euh, ba tey mm, Sénégal nag ne ñu daal wata ragal benn réew ndax euh, sélection bu dëgër la am boo xam ne mën naa dem ba ci sax euh, équipe yi mujj ci euh, coupe du monde bi maanaam euh, finale ak demi finale ak xeet googu mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fas ngeen taaxirlu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetlooti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy dooree ak seen ak la fa xew xam ngeen ne euh, cantine ya fa nekkoon dañ leen fa jëlee mu soppi xar kanam moom bërëb boobu nga xam ne ay commerçant ñoo daan jóge fu ne di fa daan seen doole ñoom ñooñee ñu ne nañ fa jóge mu gën a gaawee xam ngeen li ko waral BRT ak euh, liggéey ba fay jaar yenn ci jaaykat ya euh, ne fi mu ne nii ñu ngi ci guddi gu bët sete gut ndax foofe ñu daan liggéeyee fa lañ daan daal seen doole dañ ci ànd ak Alhassan ak Jaafara Ba ab bëccëg bu wute lool buñ doon faral di gis ñoom jaaykat yi donte sax Petersen mu ngi wëy di wone ambiance bu muy tàmm di wone ci wet gi nag ñu mën a nemmeeku ñi nga xamante ni ñoom la liggéeyu BRT bi laal xamatuñu lu ñu war a def Abdoulaye Khar Sarr ci ñoom la bokk fii mu taxaw nii moo nekkoon place man maa ngi ak trois employés dañuy liggéey si man te man xale laa fii nii. trois emplois yoo xam ne dañuy liggéey ci man ñu ngi fi ñun ñaa ngi ne ci barage fee di lal ñu ngi ne taxaw ak kee di wuyu téléphone ci man lañ doon liggéey ma leen di fay te xale bu ndaw la te man may may gis nii dama nekk ci làmb di bëri yoon naa sama licence te teewul damay xëy di liggéey si di faay li may liggéey état mënu ma koo jox man maay dundal sama njaboot te xale bu ndaw laa yaa ngi dégg kon bu demee ba noonu nañu jël foo xamante ni dañ fay xool xoolal lii fi nekk si mbooloo yéen war na leen yéem. comme ni mu koy dundee moom Abdou Lahad moom itam mi nga xamante ni ñu ngi koy tuddee maalaw fii ci marché bu Petersen jàpp na ni xamatul sax li mu war a def ci jamono ci marchandise am bii mu yor dafa nekk di ko wanteer loo ko fay nee na mu jël. li ma yor ni man moom laay jaay fii laa nekkoon sama place te tukki naa ñetti yoon yàlla dogal réussir ma foofu yàlla indi ma waat Sénégal bi ma ñëwee Petersen. dëgg la waay wallaahi amatuma passeport. barki Serigne Babacar si yàlla moo ma tiim su ma dee sama bàmmeel Macky Sall du ma fekk laa amee soxna sama doom mi ngi ci 18 ans école fay yi patron yóbbu seen doom laa ko dugal mu dama koy fayal chaque weer instant bi mënutuma ko lii ay ensemble la seen jaar nopp jaar waan gis moom laa yor sama saag yëpp moom laa rango fii laa sama table teg ko ci ci jaay maa ngi ko doon jaay 1500 1000 francs mais instant bi barki Alaaji Malick taalibe si Alaaji Maalik boo ma fayee 300 ma jaay la ko pour am lu ma dépassé su ñenn ci ñi nga xamante ni nag ñoo yeewoo ci alentour yi wala di fi jaar jamono junne donte sax jàpp nañ ne li nga xamante ni ñoom la marchand ambulant yi di dund métti na waaye am nañ yaakaar ni place bi nga xamante ni mooy marché Petersen ak liggéeyu BRT tey foor a ñëw place bi dana soppi xar kanam. Alhassane Ba ñu koy jaajëfal bu baax a baax des ba tey ca marché Petersen ak kuréel gi lëkkale jaaykat yooyu di sàkku ci nguur ak Sénégal nga la nee ñu mu wutal leen tuxal leen feneen fu nu mën a daan seen doole wa ilaa mu jox leen dàmpaay ndax la ñuy dund métti na dañuy euh, euh, teewlu kenn ci ñoom euh, Dame Badiane la ca marché Petersen ay kàddoom ngeen jéggal ma ci njumte gi sànq du jaafara Amadou Bala ànd ci ak doomu baayam Alhassane ñun si réew mi lañ bokk wala bokkuñ ci réew mi ndax gis nañu réew mi ku saq ñu wax ak ñu wax ak yow mbër yi duñ seen morom ñoo leen ëpp fuuf étudiants yi bu ñu waxee ñu dimbali soutenir leen euh, musiciens yi noonu wala réew mi dafa am ñaari ñaar ñaari population loolu laa laa laa laaj ndax ñun tiit ak jaaxle ci la nekk ndax da ngay liggéey ba jàpp dal jàpp ne yaa ngi ci ñu xëy xëy yàqale loolu yëpp ba kañ président Macky Sall laay woon nag na wax ci lii balaa ëpp loxo ndax lii man xam naa ne jëmul kër lii jëmul kër. ñun am na ñun am nañ ñun am nañ solution xam nga tey bu ñu joxoon xaalis tey ñaar fu ñett fa ñu lekk mu jox sénégalais bi liggéey lañ bëgg ambulant yi bu ñu liggéey jotewuñoo kenn dara. ñoom bu ñu nekkee di liggéey amuñoo kenn soxla amuñoo kenn problème liggéey rek lañ soxla lu dul liggéey soxlawuñ ko nañu dimbale si ñaari fii di jox ñu appui Alioune Ndoye fii pare ñu di woo ci ah président fexe jël responsabilité am jël site bii nii jox ambulant yi boo ko defoon rek la définitivement ambulant bi dootoo dégg benn ambulant bu takk ndax ambulant yëpp xaj nañ foofu site baa fii fii nekk ko ci gannaaw fii dara nekk ko yëpp ay bayal ay bi kesa ñoo nekk nañ ñu ko jox ambulant yi yi dem ci ñun de dañ une fois encore kenn dee demaasi wuñ ñu kenn joxuñu benn dërëm kenn waxat ak ñun jékki-jékki nañ ñëw nañ daay nañu doole yàq suñu alal sakkaas ñu dem seen yoon ñu dem ca dëkk bu ñu naan coxmat jàpp leen ma nga nekk ca zone des Niayes foofee askan wu mer ba futu xam ngeen ne zircon ba ak euh, liggéey ba ñu fay amal tax nañu daal ne ñu euh, askan wu yeewoo foofu ñu bëri dañu leen faa fas yéene yëkkati loolee la askanu coxmat na du ci dal taxawal nañ sax seen kuréel goo xam ne daal dañoo bëgg a aar seen moomeel ñu baleen foofee ñu dëkk fa dañuy dem euh, ca diwaan ba muy ca njàmbu fekki fa Thierno Fall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 Thierno Fall ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñu des ba tey ci xibaar yi mbokk yi dem ca bët euh, saalumu réew mi foofee ca diwaanu Ziguinchor dañoo gis ne daal ay Samba booy tey ñoo xama xëy amal ay cong ci suba cuy foofee ca tëkk bu ñu naan euh, Koutengor mu euh, digganteem ak Bignona mi ngi toll nag ci ñetti kilomètres mu ngi nekk ci route nationale numéro 5 bi diggante Bignona la ak frontière wu Gambie ñu ne daal benn woto rek moom moo doon daw di daw. nag ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, balu fetal yooyu ñu doon sox ay sàmba booy euh, yoru ko nag fañ taxaw nag nee ñu daal képp ku leen romb euh, te nu ëpp la doole rek nangu nañu sa koppar nangu itam sa téléphone ak leneen loo yoroon te nu soxla ko arme bi ba mu ko yëgee dem na def fa liggéey bu am solo ñuy jaajëfal suñu naataango ci diwaanu Ziguinchor di Boubacar Diassi moo nu jox bile xibaar. ñu des ba tey mbokk yi ca diwaanu Sigicoor ak atteb ña ñu joxañ baaraamu tuuma ci bakkan yi ñu faatoon ci àll boo fa bayo tey la juróom-ñeenteelu fan ñu leen di euh, déglu xam ngeen ne démb taskatu xibaar bi di René Capain Bassène moom lañ doon déglu tey itam ci bëccëg gi euh, moom la attekat bi doon déglu moom euh, weddina ba tëdd ci suuf tuuma yi ñu gàll ci ndoddam chambre criminelle bi nag moom tey rek daal ci ay mail yoo xam ne moom jotoon na ko moom René Capain Bassène Assane euh, la ñu doon xool ak euh, càmbar yenn yi nee na moom ko moom yeneen yi nee na moomu ko lu ci mën a am euh, ay avocat wam ñu ngi sàkku rek daal expertise maanaam ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu woowee ñu gën caa defi gëstu audience bi dañu ko dakkalandi ba gin ëllëg yemook aljuma daan ci ñëw ci xibaar yi ci français ak Boubacar Diassi ak Sarah Cissé ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci beneen ponk xam ngeen ne njiital Pastef Ousmane Sonko yëkkati na ay kàddu di woo ay ñoñam euh, ñu ànd ak dal euh, juróom-benn fan ci avril la war a wuy ji ci mbir euh, mi ko lëkkale ak soxna suñu naan Adji Sarr lu ci mën a am moom Ousmane Sonko daal mi ngi sàkku ci waa Pastef ak képp ku ànd ak ñoom ci xeex bi mu ànd ak dal te itam sax bañ dem foofe lu ci mën a am waa forum du justiciable rafetlu nañu daal doxalin bi te itam ne doxalin la boo xam ne doxalin doxalinu kilifa la bu ñu doon xaar ci député bi di maire ab Ziguinchor Boubacar Ba euh, jiite forum du justicia justiciable pardon moom la ñuy teewlu. appel au bi nga xam ne démb honorable député usman Sonko maire de Ziguinchor daf ko yëkkati di ko jëmale ci ay militan ci ay sympathisants di leen demander à ce que bis boo xamee ni yoon daf ko woolu juge d'instruction bi woolu ko ñu war ko déglu ci mbir mi ñu war ko auditionner jarul ñuy génn di def ndiiraan di ko topp fële ci tribunal ba loolu nekk na appel au calme boo xam ni ñun nañ koy rafetlu à sa valeur parce que dafa nekk appel boo xam ni dafay participer ci li ñu wax ci nasaraan le bon fonctionnement du service public de la justice dafay yombal ni nga xam ne tey noonu la yoon war a liggéey ci dossier bi donc ñoo ngi koy rafetlu ñoo ngi koy rafetlu parce que dinañu épargner à ce que li xewoon mois de mars mu xewaat donc événement yi fi xewoon euh, ñëpp gisoon nañ li fi am li fi xewoon ba ñëpp di ko di ko di ko ñaawlu mais aussi dina épargner à que juge bi dugg ci yenn ramification juridique yi parce que bu dee day dafa am ay événements yoo xam ne dafay empêcher bépp justiciable laa wax mu dem wuy ji yoon mu bañ a déférer li nga xam tey moom mooy convocation bi yoon dafa jox prérogative juge bi à que mu jël sañ-sañ pour ñu mën ko indi te loolu juge mun na ko def à travers un mandat d'amener donc je pense que c'est dans une euh, c'est dans l'intérêt de tout le monde tey ñu dem ci mbir mi ak dal ak sérénité aywa ñu wax itam ci président d'honneur bu kuréel gi lëkkale soxna juriste yi ci Sénégal di soxna joor Fall Sow moom daal lu jëm ci loi bi ñu euh, voté mu aju ci wàllum parité euh, sàkku na ñu gën koo euh, dëgmal waaye itam viol loi itam bi ñu voté mu criminaliser viol moom it daal daan yooyu gën a tar bëgg na ñu gën caa defi jéego moom soxna si nag ci am ndaje mu yaa ci la yëkkatee kàddu yi ci teewaayu Alxasan la woon ak ak Amadou lii nag si loolu lañ ko jublu maanaam comme problème mu violence yi ah, maanaam euh, noot ay jigéen yi sàkku ay jigéen yi am na dañu bëgg daal seet naka lañuy def ba mu wàññeeku déjà am nañu benn euh, kii loi bi nga xam ne moom mooy wax loo xam ne sàkku sàkku jigéen ak euh, sàkku itam ay xale yu tuuti ah kooku dañ ko tere ba léegi sax avant délit la woon léegi crime la xam ne dafa gën a yokku ah buñ lay tëj dafa gën a yokk kooku moom ñu ngi koy def loolu yëpp dañ ko ñëw gëstu pour seet waxtaan seet ndax li ñu am ah ñu ngi koy toppatoo ndax bu fekkee ne mën na dem bu fekkee ne am na leen loo xam ne wax nañ ko soppi ci suñu doxin ndax mën a gën a gaaw Euh, àgg si loo xam ne bëgg nañ ko loolu yëpp dañ ko dañ koy dañ koy gëstu di ko waxtaane ndax jigéen ñi seet naka lañuy def ba mën a gën jëm jëm kanam si li nga xam ne yëpp yoon may nañu ko ñu mën ko am aywa CNRA ak dogal bi mu jël tere Ahmed Aidara e, yenn ci li mu daan def laata ñu koy fal lu ci mel ni yéenekaay yi ak yu ni mel Bougane Gueye Dany àndu ci moom PCA bu groupe de médias la mu gis rek daal mooy loo xam ne teguñu ko fenn ba noppi itam moom mi ngi sàkku nag ci waa des médias boobu mu bokk rawatina direction bi jël ay dogal nee daal li nga xam ne moom la CNRA jël ni dogal e, ñoom e, mi ngi sàkk ci ñoom ñu bañ koo topp te doxal seen ab liggéey nam mu waree dinañ ci dellu ci suñu yeneen jataayu xibaar ñu wax ba tey ci xibaar yi ak ñàkk kaaraange ga ñu nemmeeku ci diwaanu Bambey rawatina dëkk bu ñu naan Ndéem euh, foofee xam nga ne lu jëm ci wàllum artisanat dafa am solo euh, ñu ne daal ay samba booy ñoo fay wàcc takku ba dëgër euh, ñëw buub la askan wa am dem seen yoon ba tax na sax kilifa ak diwaan ba mi ngi sàkk rek ñu daal leen fay defal ab police boo xam ne dina leen mën a jàppale ñu gën a yokk seen kaaraange ci diwaanu Bambey dañu fay fekk Babacar Diouf mu ànd ak Ndongo Ndiaye.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 ñu wax itam ci leneen muy euh, doomu Sénégal di euh, Balla Diouf moo xam ne daal dañu ko tëye woon lépp fanweeri fan foofee euh, ca Cameroun njaboot gi daal jot nañu xibaar ne nag moom mi bokk ci MSF di médecin sans frontières moom Balla Diouf bàyyi nañ ko njaboot gi nag yëg nañ ko bi ñuy dalal délégation bu médecin sans frontières ni ma ko waxee lu ëpp benn weer moom doomu Sénégal boobu ak ñaari naataangoom kenn ki di doomu France ak Côte d'Ivoire keneen ki di doomu Tchad euh, ñuy liggéey ci ONG bi ak ñaari doomi euh, Cameroun dañ leen euh, jàppoon ñooñu nag ba léegi xamuñu daal ana lan moo tax ñu def lu ni mel ñu koy xaar nag fii ci Sénégal lu ëpp fanweeri fan moom Balla Diouf nag ci loxoy Balla juuf ngeen baal ma ci loxoy ay nit la nekkoon waaye nag di wax rek ne jamono ji ñuy àddoo ma nga réew mu Nigéria defee su ko dara loolu lañ xamalegun ana itam lan lan moo tax ñu tëye woon ko ana lan lan moo tax ñu bàyyi ko loolu yëpp euh, jotaguñ ci ay xibaar waaye lu ñu ci mën a am daal euh, moom mooy Cameroun lañu ko tege woon loxo euh, waaye foofee ca Nigéria lañu ko gisee moom nag def na fukki at foofee ca Médecins sans frontières lu ci mën a am dinañ ci dellu siwaat ba tey ci yeneen jataayu xibaar ñu wéyal xibaar yi mbokk yi euh, doxantu ba ci biir réew mi dëkk bu ñu naan tubaatul ma nga nekk ca diwaanu ceeskaay kaay la ñu fa gis ci njàng njàngale euh, mooy gune yi ak euh, daal njàng mi dañoo gis ne niveau bi dafa wàcc bu baax a baax bokk na ci la ko waral nee gune yi liifantu gi dañu ko wàññi téléphone portable yi la ñuy jël ba tax na daal ñu ne gox yee gox goxaan yi am na liggéey bu am solo buñ ci war a def diwaanu Cees kaay fay fekk Cheikh Anta ak Seylat Yeex yu bees yi ñuy doog a fal fii ci diwaanu Thiès lëkkaloo ci benn kuréel gu mag fas na nag taxawu dëkk bi nee nañ bëggatuñoo gis benn mbalit ci diwaanu Thiès te it gu set wecc neex a gis lañu bëgg ba tax ñu amaloon nag ay set setal fu nekk dugg nañ fa ruq-ruqaan yi ci gaaru routière bi ba ci marché central. ñu lancé officiellement opération Thiès ville propre ñu bëgg dëkk bi set ñu bëgg dëkk bi sell. ñu bëgg ku yeewu ci dëkk bi rek di nga xam ni cees dëkk bu set la ku ñëw ci dëkk bi aussi dinga xam ni cees dëkk bu set la loolu ñu ànd ci ak trois maires yëpp ñu engagé wu ak seeni personnel ñu engagé wu aussi ak suñu partenaires yëpp ñu engagé ak préfet de Thiès lépp benn objectif rek nan la ñu mën a fexee Thiès delluwaat nekk une vraie ville nekk dëkk bu set nekk dëkk bu sel tali yi sax waratul am suuf te loolu engagement la boo xamante ni jël nañ ko te ñëpp aussi jël nañu engagement boobu. maire Thiès ville rafetlu lool jëf ji. maire yi de nee nañ am na nag loo xamante ne nag yuppi nañ ko ngir askanu Thiès jàppale leen ci. ñëpp nag taxawu dëkk bi. ba mu bokk ci dëkk yi gën a set ci réew mi. askan wi ñoom ñu comprendre ni lii ñuy liggéey ngir ñoom la ca Thiès nag ñi fi yeewoo ñëpp bëgg nañ dëkk bi set nag. parce que suñu option mooy Thiès ville verte. dëkk bu naat dëkk bu am ay garab. dëkk bu ay fleur waaye nag liy ñuul ci soow mi Cees gi de nee nañu amuñu ay camion yoo xamante ne dinañ mën di tondi mbalit mi di ko tuur yi loolu nag jafe-jafe la ba tax na ñu ngi ciy sàkku nag ñi nga xamante ñoom ñoo yor wàllu cet gi ñu jàppale leen ci. Cheikh Anta ñu ngi lay jaajëfal di jéggalu bu baax a baax mbokk yi ci élément boobule njàng ak njàngale lañ doon waxtaanee waaye euh, bi ñu leen indil mu jëm ci wàllum euh, euh, cet geeg gën a seetal gi dinañ ci dellusiwaat ci français ak Sara Cissé ñu wax itam ci wàllum euh, caada xam ngeen ne euh, Mouhamed Mbougar Sarr euh, mooy doomu Sénégal boobu prix Goncourt dafa ñëw fii ci réew mi moom nag foofee ca maison d'édition Harmattan doon amel ndaje mu am solo moom bindkat bi ne lépp lu mu bind rek moom dëggal na boppam moo ko bind te itam nangu na lu ci mën a am nag gis na ne lu jëm ci wàllum solidarité jàppalante daal dañoo gis ne ñi yëngatu ci wàllum caada am na lu bëri lu ca des jamono yooyu Abdoulaye Souleymane Kane moom mi ngi sàkku rek lu jëm ci wàllum éthique euh, ñu gën cee waxtaanee yeneen i bindkat itam teewoon nañu ci ndaje ma dañ ci ànd ak may mën a njaay ak Yunus Diatta. ay bindkat janoo ak ñi nga xam ni wàllum cosaan ak aada moo leen soxal ak ñi nga xam ni ay boroom xam-xam lañu livre yi ana fan la toll wante itam waxtaanee li tax lu bari du dox Mouhamed Bougar Sarr di ñaawlu. assumer à un moment ci sama xalaat bindkat bi kenn waru koo xoqatal bu deful rek lu aay li mu bind daf ko war a assumer ba mu mat sëkk attaqué woon nañ ma fii ci li ma bindoon wante fu mu mujj dama xalaat ni ñun ñi nga xam ne ñun ñooy bind di fi ba foog ñu am solidarité boo xam ni bu ñu attaqué ñu ñëw daal ñuy taxawal loolu nag amul ci ñun loolu rek lay ñaawlu keneen ku àddu jëmale ci société bi ni muy tëddee ak jafe-jafe yi ñu nemmeeku Felwine Sarr jafe-jafe yu bari yi ñuy jànkonteel ñu duppeeku ay dérive léeg dañuy wàcc yoon te lool tamit warul am ku ci nekk war nga am sa responsabilité bu mat sëkk boo xam ni xam nga fi ngay tàmbale ak fa ngay yem dafa am loo xam ni kenn warulaa taaj la ko wax loolu itam war nañ cee liggéey réaffirmer leur àddu nañu jëmale ci livre yi lu tax lu ci bari du jaar jafe-jafe yi jëm ci kàllaama gi. si nous bi nga xam ni dañ koy bindee mooy tubaab gi loolu itam am na ay jafe-jafe yu mu jur ci sama gis-gis am na liggéey bu yaatu boo xam ni war nañu koo def ñun bindkat yi kàllaama yi nga xam ni nit ñi dañ koo nàmp. ñu gën cee gëstu di ci gën a bind di ci bàyyi ndax kat jamono day dox te foofu itam ñu am liggéey boo xam ni dañ koy def ci suñu wàll. ngir ñu soppi doxalin nag abdulay Elimane Kane dafa xalaat ni foog ñu delluwaat ci patrimoine héritage ak lu ni mel. Ahmed Mbougar Sarr prix Goncourt 2021 ñu wéer ba tey xibaar yi wax euh, ba tey ci wàllum caada ak euh, les bonnes euh, de la rédaction Ibou Diouf def taxaw seetlu tey ci téere bi ñu dippee la classe inversée bindkat bi Ibou Dieng moom nag lu jëm ci wàllum njàng ak njàngale sottante xalaat waaye itam doxalin bu bees boo xam ne bu nu ko jëfandikoo ca kër ga ak daara ya mën naa jox dara dinañ ci dellu siwaat ci biir xibaar yi ak Sarah Cissé ñu jeexalee ak euh, tàggat yaram coupe du monde 2022 ci kattanu yàlla ci seen jaloore yi ñu def euh, waaye nag moom docteur euh, excellence docteur abi bu Diallo muy ambassadeur bu senegal foofu ca Qatar mi ngi sàkku rek ci ay ñoñam nga la ñu booloo doon benn say fas yéene gunge dooleel sunu gaynde yi foofee ca Qatar dañ koy teewlu. fekkee personnel ambassade bi mboole mu diaspora sénégalaise bu fi dund ñëpp ànd euh, ci mbette moomu euh, donc euh, di wane ne ni ki démb lañ doon def levée de drapeau pour juróom-ñeent réew yi nga xam ne ne ñoo qualifié ci mondial Qatar 2022 lañ doon yëkkati raaya yi nga xam ne ne ñoo dem ci mondial bi Euh, et puis euh, euh, autorité Qatar yi tamit magnifié ko kontaan ànd ak ñoom ci mbégte boobu ci njiitalu Nasser Al Khadir président comité d' organisation Qatar 2022 ni ki noonu vraiment Qatar yi ñu ñuy séntu di suñu performance ci mondial bi donc di xaar ñëpp ku nekk def ci sa effort ñu ngir ñu am ci ndam ñu dem final incha allah ñu ngi ko jàpp moom coupe du monde boobu Qatar 2022 fukki fan benn ci weeru novembre jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre ñu ne euh, Sénégal daal warta tiit warta euh, jàq ci euh, jàmmaarloo bu mu nar a jàmmaarloo ak benn équipe ndax dañoo gis ne équipe bu Sénégal bile mën naa jongante ku ne tey itam sax mën nañ koo xaar ba ci équipe yi nara mujj ci jongante boobu di coupe du monde moo xam demi-finale wala finale loolu nag di gis-gisu Demba Varor dañ ci ànd ak gëstu Cheikh Saad bu Diarra mais Danemark gën a difficile peut-être que équipe boo xam ne sax mën na jël mos na jël coupe du monde euh, jàpp naa ne euh, tirage bi bu ñëwee euh, li la ciy génnee mooy détermination que mu nekk contre des grandes li nga bëggoon. romb quart de finale bi ñu yamoon ca 2002 doon mbébét bu mën nekk. ñii euh, comme dañ leen di xaar mën na gën a métti ci ñoom waaye boo xoolee sur le papier ñoom ñoo ëpp expérience parce que ça fait sept ans même coach bi la euh, joué nañ ñaari final kan gagné benn bi mooy capitaine u Naples Edouard euh, Mendy mooy góolu Chelsea gagné ligue que que bële mais san ne veut rien dire encore parce que euh, coupe du monde day compétition boo xam ne euh, dafa jafe. Sat bu jara ñu koy sant bu baax di ko gërëm sant leen yéen tamit ci seen safo ak seen kóolute Sara Cissé noppi na dégtal leen xibaar yi ci français léegi léegi lay doon di leen ñaanal panaanum jàmm di ko sàkku ci yéen yaa ngeen jëf ci seen cofeel